abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activer cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngeen di ko mën a jot ca tàng-tàng ba tàng-tàng ba assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne bi di yaatal xeltu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di am mbégte di fas yéene àndati ak yéen ci benn secret bu nga xam ne yaakaar nañ ne dina wara soxal ñenn ñi mbokk yi bi lan moo ko tax a jóg secret bi day kaaraange gu mag a mag la kaaraange gu ama am doole la goo xam ne day musal nit ki ci mbas ak nattu day musal nit ki ci mbas muy épidémie ak nattu muy épreuve moo tax mu ne xew sunun azimun minal waba wal bala mu ne lii daal kaaraange gu mag a mag la kaaraange gu ama am doole la muy protection bu efficace la bu nga xam ne day aar nit ki di ko musal ci mbas mbas mooy épidémie al waba mbas mooy épidémie lu mel ne choléra wala Ebola wala coronavirus kooku mooy alwaba muy mbas waaye day musal nit ki ci nattu nattu muy albala mooy épreuve épreuve waaw mbokk yi gu am doole la goo xam ne képp ku koy jëfandikoo rek incha allah mbas moom bu ñëwee ci dëkkam wala beneen dëkk bu mën a doon ah dina am chance ci mucc ci de ci kàttanu yàlla waaye yàlla dina ko musal itam ci natt yu bëree bëri yoo xam ne doomu aadama da koy faral di ragal mbokk yi kaaraange gi mooy lii may bëgg leeral kaaraange gi ni ñu koy jëfandikoo mooy lii may bëgg leeral lu ñuy jàng la da ngay ubbee bismillahi rahmani rahim daal di ciy kaaf haa yaa ayn sood kifaayatunaa xaamiim ayn siin qoof ximaayatunaa bismillahi baabunaa tabaaraka xiitoonunaa yaasiin wallahu min waraihim muxiit bal huwa qur'aanun majid fi lawxin maxfuud loolu yi ma wax muy li commencé bismillahi irrahmani irrahim kaaf haa yaa ayn sood kifaayatuna ba ci fii lawxin maxfuud loolu yoon rek nga koy wax soo noppee summa taqulu salaasan maanaam soo noppee nag lii may bëgg a wax nga wax ko ñetti yoon waaw nga teg ci lii wax ko ñetti yoon muy jàlla rabbi wa qodara azza rabbi wa qohara wallahu almuciinu liman sobara wala dikrullahi akbar loolu moom ñetti yoon nga koy wax li commencé ci jàlla rabbi ba ci wala dikrullahi akbar trois fois nga koy wax muy jàlla rabbi qadara azza rabbi wa qahara wallahu almuinu liman sobara wala dikrullahi akbar waaye ni gën nag mooy nga jànge ko nii jàlla rabbi wa qadar azza rabbi wa qahar wallahu almuinu liman sobar wala dikrullahi akbar ñetti yoon muy trois fois soo noppee nga teg ci lii muy allahumma yaa rafi'a saqomi wa baari an nasami wa aliman bi jamiil alami idfa anna albalaa walwabaa walamrado wa mauta alfujaati ya arhamar rahimin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waaw loolu moom benn yoon rek nga koy wax li commencé ci allahumma ya rafi saqam ba ci wasal wasallam ma baari an wa yaa caaliman bi jamiicil alam idfa canna albalaa walwabaa walamraada wa mawta alfujaah birahmatika yaa arxama arrahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mbokk yi lii daal day musal nit ki ci mbas ak nattu ci kàttanu yàlla kon dañu taxawandi fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltu yéen di bàyyi xel waxtaan yi di commenter di aimer ndax fi la njëriñ di gën yaatoo jaa ngeen jëf